ministre de l'intérieur boobu lu mu wax dama jàpp ne naanagul ay garabam parce que bu naanoon ay garabam moom du taxaw wax lu mu wax parce que ministre de l'intérieur organiser les élections lañ la wax soo yoon nekkul ku pare ak ku parewul pour pour nga xam ku pare ku parewul waa DG bu ñu déposé liste yi ba pare di nga xam ku pare ku parewul donc ministre de l'intérieur bu taxawee ne opposition parewuñu ça veut dire que déjà ministre de l'intérieur wane na fu mu far lu ñu koy waxal moom Jean Baptiste Tine na toppatoo wàllu intérieur mu xam ne ab gendarme la mu xam ne c'est un agent assermenté Ousmane Sonko sale boulot bu mu ko bëgg a def la ak Diomaye na ko bu ko sax jéem a def parce que nous allons rester vigilants nous serons vigilants d'abord pour les élections là-bas leneen li mooy xoqatal bu ñu commencé xoqatal tey Lat Diop la démb Bah Diakhaté gis nañu notre frère Ahmed Suzanne ça ne passera pas parce que lan fii ay góor ñoo fi nekk fii ay góor ñoo fi nekk fii ay garmi ñoo nekk fii ragal nekku fi une fois de plus parce que nag tey gis ngeen dispositif dispositif sécurité bu ñu fi teg amul kenn ku mën a taxawaalu euh, côté DIC pour soutenir Lat fu ñu ko teg pourtant ñun lañ doon wax ay dictateur lañ te pourtant ñun on les laissé la latitude on les laissé ñu wax seen soxla ñu wax seen xalaat ñu wax lu leen neex mais tey lan jàpp nañ ne ne dañoo tële jàpp nañ ne mënuñu jàpp nañ ne xamuñ fu ñu jëmee réew mi pour rek ñu ñu mën a gagné législative dañ ko dañ ko dañ ko bëgg a sàcc def ko ci ay njublang def ko ci ay tappale jël ay nit nëmb leen jant loolu mooy dëgg loolu nag mooy je m'adresse directement à Bassirou Diomaye Faye le suppléant xaw ma suppléant de la république mu xam ne dëkk bi moom lañ ko dénk moom lañu votel votel lañu Ousmane Sonko maintenant la dictature que Ousmane Sonko veut veut faire dans ce pays là ça ne parce que nag fii ay góor ñoo fi nekk fii ay garmi ñoo fi nekk aujourd'hui nous au niveau de la nouvelle responsabilité a demandé de venir soutenir le camarade Ba tey mu ngi ci ginnaaw Lat sa ak sa yelleef donc loolu la police va ronder ils vont venir ils vont tout faire on va pas arrêter on va parler bu ñuy takk nañu takk bu ñuy jàpp nañu jàpp comprendre nga dañuy wax nu sommes dans un pays libéral nous sommes dans un pays démocrate duñu duñu bu neexee nañ jëli seen i i police indiwaat ko loolu mooy loolu mooy wax ci lu tax ñuy xaar ba élection jub ñuy woo Lat Diop non dama ne non dama ne dossier mënut a gaawee noonu parce que IGE mi yor wàllu enquête yi IGE mi yor wàllu audit yi mënuñoo def enquête nee nañ seen enquête balaa moo pare en deux vingt cinq la war a pare il faut le dire. non non dama ne non pôle parquet finance dañ koy transférer dossier te dossier mënuñ ko transférer pôle parquet finance tant audit jeexul te balaa audit jeex waa waa IGE dañoo war a woo d' abord am ay questions ñu ko war a posé pour man damaa jàpp ne pôle parquet finance boobu ay tappale la pôle parquet finance ay mbirum caaxaan la pôle parquet finance boobu doole la loolu mooy mbir loolu mooy dëgg c' est du banditisme mooy. nañu bàyyi Lat Diop mu ñibbi këram nañu bàyyi Ahmed Suzanne Camara parce que Ahmed Suzanne Camara lu mu mooy dëgg parce que newoon na président de la république du wax dëgg premier ministre du wax dëgg la preuve en est président de la république dafa waxoon son premier ministre ira à l' assemblée le mu il a dissous l'Assemblée le 12 donc am na Suzanne Camara am na dëgg ci ci la premier ministre donc damaa jàpp ne justice dañoo war a libérer notre Camara am na Suzanne ak Jérôme ba mu nekk ñaari dossier yi nga benn ñaareel da wax ma benn dossier bi lañ wax kan Jérôme Jérôme c'est un garde corps il a travaillé pour nous tous man Jérôme c'est mon ami et j'assume Sniper c'est notre camarade c'est notre garde corps il a été dans tous les combats du sàcc du bandi c'est un honnête citoyen c'est un sénégalais ils ont maintenant mbir mi ne lan ñoom ay bandi la ñu woon ñoom ay délinquant la ñu woon sniper à protéger la république sniper à protéger tey liñ ko mooy lan ñun ñun ñu nekkoon ak ak moom sniper deful deful dara il faut que ñu arrêté loolu. merci beaucoup Omar. merci beaucoup. ko fi yoo xam ne nii daal fu sori la parce que tey lu mu lu gars yi musul changé Lat Diop moo ko changé muy logo bi ak leneen ak leneen pour fekkee si wàllum gestion wul LONASE Lat moom mun naa lay wax ni zéro faute parce que man xam naa man mii di wax ak yow liggéeyu musuma liggéey Lonase kon tey euh, kon en tant que coordonnateur te nga xam ne ni jege naa Lat Diop xam naa ne li mu def Lonase wax dëgg yàlla waxuma benn directeur bu fa jaar def na ko de mais moom li mu def Lonase kenn kenn defu ko fa kon si nekk si wàllum finance ak si wàllum xaalis loolu bu ñun bu ñu tëddee nelaw parce que mun naa la ni wàllum Lonase moom zéro faute waaw si wàllum zéro bi ngeen wax nag man foofu maîtriser wu ma ko à 100 kon loolu man dossier boobu mënu ma see wax parce que dossier boobu wax dëgg yàlla bu fekkee da ko see dugal ah man de maa ngi ko doog a dégg waaw mais en tout cas loolu moom man mënu man mënu mënu mënu ma see wax quoi loolu la. d'accord te loolu bu mais loolu Sénégalais yëpp xam nañ ko parce que tey koo xam ne yow ba ngay dalee liggéey ba léegi jóge si LONASE jóge LONASE ñëw euh, ministre des rapport musu la épinglé musu ñoo wax ne Lat Diop moo fi am dossier bii moo détourné lii ñu koy woo mais kooku yow acharnement la acharnement bi ça veut dire que yow boo bëggee dégg-dëgg leer na kese la mooy élection locale élection législative yi ñuy jëm si mais loolu kese la pour dama ay laafam kese la mais nañu waxante dëgg. mais bien sûr mais Lat Diop c' est Lat Diop c' national. Lat Diop du géej waay kese. Lat Diop tey moom moo fi nekk benn représentant affaire boo xam ne nii mun naa lay wax ni il national. Touba am na fa représentant euh, Géejawaay na mën naa lay wax ni Géejawaay moom seul moo nekk APR boo xam ne nii moom moo nekk Géejawaay am cinq cor maanaam cinq localités yëpp moom moo fa am ay coordonnateur cinq lo cinq localités Géejawaay yëpp moom moo fa am ay représentant yoo xam ne bu la waxee jug leen ñu jóg def leen ñu def Touba. Euh, waaw mais mairie bi loolu mun naa la bu ñu taxaw bi di ko wax day yàgg parce que tey euh, lat bu fekkoon ni xolam bu fekkoon xolam. wala bu fekkoon lu mu defal waa géejuwaay waa géejuwaay fay nañ ko wallaay lisum du ñàkk duñu ñàkk mairie bi mais da c'est dafa fekk loo xam ne nii comme que am na ay nit yoo xam ne dañoo jugoon yor seen micro yor di wax di sos naan ay euh, Aliou Sall moo sàcc suñu quatre cent mille la jóob nii wala léeg mais genre wax jooju lay Sénégal yi di gëm ba yaakaar ni carrément ni euh, sanction boobu la ñu gars yi toppee mais nekkul question boo xam ne nii dañoo xam ne dañ koo def fii wala parce que lat boo bëggee dégg dëgg waa géejawaay je pèse bien mes mots demal géejawaay nga laajte faj na fa ay nit yu waaj a dee faj na leen jàppale na ay nit jàppale na ay néew di doole kon kooku c'est l'homme social kon nag l'homme social boobu noonu yow boo xoolee bu ko